su suñu ñe suñu ñemee. exemple rek laa joxe pour mën la. expliquer li may wax chacun est libre. si ñetti faits yooyu. c'est des mm. faits factuels par exemple existe mais au même moment aussi mën nañu ñee si levée de conscience même. des sénégalais des jeunes en particulier parce que ñun tey dama ne ba toll foo xam ne tey euh, dañ ne na politiciens yi ñëpp a yem mais ñun tey dana am projet boo xam ne surtout par rapport à toute la gestion de l'actualité politique tey su ma jëlee exemple la gestion des ressources suñu leader bokk na ak suñu projet politique. ñi tax tey sénégalais commencé intéressé wu ba tey acteur politique bépp jug dafay intéressé wu sur ces questions que ce soit par rapport aux finances publiques que ce soit par rapport la gestion des ressources humaines te loolu je pense que depuis quatre ans yëpp si logique boobu la nekk maintenant soo ñëwee tënk rek si ay faits yoo xam ne nit nit nit nit kese la. man mais mais du ma du ma jàpp peut-être mm-hmm. trop de communication et je considère que Pastef communique bien euh, le président Sonko non il faut aussi. parce que parce que communique... mais pas le président Sonko. il communique si, si, tey Sénégal foofu toll foo xam ne avec l'événement des réseaux sociaux ñun dañu war a éveiller wu. surtout par rapport la question politique nga bëgg jiite réew je pense que mun nga def discours boo xam ne discours defar la comme ni nga ko waxee taal xel yi taal xel yi moo gën. nga am discours boo xam ne. da ngay nëbb nëbbal di def des actions politiques politiciennes. loolu du ko mës a nangu te président Sonko nu ma ko xamee il va jamais changer même su nekkoon tey président de wax sa jour dina wax. il sera toujours donc dans des problèmes. parce que tant que yaa ngi wax xam ne mënoo ci indi firndeel. ci doo ci soo ko tënkee noonu rek soo ko tënkee noonu rek problème day am. d'accord su la neexee aussi nga tey nga joxe tamit méritam bu mu am ba tey. actualité politique du mu changé kon nu mu ko mais loolu yëpp tey. le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse pas. non non non, mais mais bu bu résumé bu résumé. lu baax tey Pape Ousmane Sonko ci ay faits loolu je pas d'accord.